فيها كتابا إن أنت حبيبي وقليل كنت قبل طبيبا كتابا حبيبي طبيبي حتى يسير مفري أنت جاي أنت كنزي فقر كل لبي أنت جاي يا فرق العالمين حبيبي أنت إيزي مفري أنت جاي أنت كنزي فقر كل نبي رب خيري أنت جاهي أنت كنزي ربي يا رسول الكريم أنت إمامي أنت فوقي دورك قصيدتي فاغت خسائد الكرام لتخوض أبدا خير المرام waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu mooy quatrième édition bi ñu fas yéene am ñëpp dem fas yéene liggéeyal Serigne Touba ci xasida bismillahi yenmawul heey bilaa manaay walanti hay xamdan li rabbi xayril mu rabbi xadal ma xabbi bil iqtidaay waaw قصيدتي فاغت خسائد الكرام لتخوض أبدا خير المرام waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara da xam ni ñoo ngi ci wàccaay bi fas yéene jëm Rio de Janeiro bi nga xam ne mooy quatrième édition bi ñu fas yéene am loolu yëpp dem fas yéene liggéeyal Serigne Touba ci xasida yi de Janeiro noonu la demee màggal bisu xasida yi ñu ngi wér wér ñu ngi fasaale ñëpp ñi dem ak ñi demul ñi ne Argentine képp ku ne ci Amérique latine bi ñu ngi lay ñaanal bisu xasida bi dal la ci barke Sëñ Tuubaa fasaale am tam mbégte mu yaatu lool ci fekkewaat bis bi nga xam ne sunu borom moo nu dimbali woon waxtu wi daaw ñu wàññi woon fii daaw jëm Rio Grande Sul ren ji incha ñu waajee fii fara dem Rio di Janeiro ngir taxawal fa bisu xasaayit boo xam ne Serigne Touba moo ne woon kiraamatu xattu yat yi wax na ne moom xaside yi mooy ay kiraama ndax sunu borom subhanahu wa taala mboolem yonente bu mu wàcce rek am na téere bu la booleel boo xam ne téere boobee mooy doon li nga xam ne moom ngay tegtaloo ngir mën a gindi ña nga àndal Serigne Touba nag wax na ne moom euh, xaside yi mooy ay kiraama kon nag noo ngi santaat yàlla bu baax di ñaan yàlla sunu borom ah nu dem ci jàmm daje fa ngërëmal sëñ Touba dellu siwaat ci jàmm la ñuy dox itam euh, dara génn ci sëñ bi dañuy tàmbalee ci moom yem ci moom rek noo ngi ñaan ci barkeb sëñ bi sa borom defal nu tawfeex defal nu xéwal yaatu dara jee sëñ Touba Cheikh Ibrahima Fall. Euh, sëñ Gora euh, wax dëgg yàlla tey jii dina moo xam ne mbégte mu rëy la ci ñun ndax mboolem taalibe yi nekk ci réew mi yëpp daje nan muy Touba Brésil Touba Argentine ñëpp daje nañ ngir fàttaliku li nga xam ne mooy liggéey bi Serigne Touba muy xasida Serigne Touba xam ngeen ni Serigne Touba liggéey bi li muy rëy rëy rëy dafa wax ne karaama ci xattu yedd yi karaama mooy mbindum loxo mi nga xam ne mooy xasida Serigne Touba yi xasida Serigne Touba yi nag doon loo xam ne mbooleem kuy ab jullit rek war naa xam lan mooy njëriñu xasaay xasida sëñ Touba dafa wax ne kitaabati faaxat suyoo ko tarbiya pour suyoo xam ne mag ñi bu njëkk dañ daan euh, maanaam dem ci àll bi di sàkku ngërëmal yàlla subhanahu wa taala di ko sàkk fu ne waaye sëriñ boo xam ne tawasilu aqlaami ila la xaabidat ila xalwatal abqaar kama aqna xasida yi sëriñ Tuubaa yi day yeggale jaam te yàlla ci yàlla ci lu dul ba noppi sëriñ boo xam ne wajaxal kitaabate min sal yow mi fa waxa salaatin xubilat wasoo mi na nga def sama xasida yi mu koy julli gu ñu nangu ak koor yaa man mi daa di yaay jaxalte kadima man maa moom sahido min xuddama yow sama borom def nga sama daa ji mu mel na deret ña dee ca xare comme sëñ góor bis bi ñu am ci mbégte moo xam ne kenn xamu nu mu toll mboolem ñi nga xam ne nekk nan dër waa Brésil muy waa São Paulo ak mboolem euh, waa suuf bi yëpp dajee nan tey jii di fàttaliku mbindum Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne lépp lu Sëriñ Tuubaa am rek ci tagg Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci la ko amee salaatu sitta bi maddahi sitta taatihi baatamaxati kon wax dëgg yàlla tey jii moom sunu xol dafa sedd lool euh, ñu lay sant baax tamit di la gërëm di ñaan ci loolu Sëriñ Tuubaa liggéey bi nga xam ne moom ngay liggéeyal sëriñ bi yàlla sama borom dafa lu ci kawe sa njot barke Seexul Xadim wax dëgg yàlla am nañ mbégte baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñu ngi ànd ak jëwriñ yëpp sëriñ Abdou Assis moom sëriñ Modou Aïssa mi ngi fi sëriñ Xaadim Fall mi ngi fi sëriñ Daam Jenn ak mboolem kilifa yëpp àndandoo mbokk taalibe yi ngir fàttaliku jëmmi Serigne Touba ji ak jëm fii nga xam ne mooy Rio xam ne ci lañ def bisu xasida yi Serigne Touba yi ñaan fa mbokk taalibe yëpp kon ñoo ngi jéglu ci kaddu gi asalaamaaleykum wa rahmatulah ko bu wér a wér a wér waaw xol dafa seen ba mun ñëw sax wax daal li ñu bëggoon lépp moom lii wax dëgg yàlla sant di ñaan daal yoonu jàmm ak salaam di ci am mbégte lool nag waaw di sant di ñaan maam Cheikh Jëmb Fall yaa ngi fi tewee waaye fi yàlla na fi yàgg ak sëñ Muntaxa yaa ngi fekk sëñ Xaadim Mbàkke sunu yaakaar yi tey ak ëllëg lii nag ak cant la bin ko fekkee du sun ngóor waaye sañ sëñ Tuubaa muy ñaan ci barkeb xaside yi yàlla na nu sëñ Tuubaa nangu waaye nanu wóor ne lii daal murit bu ci ne war ngaa yokk sa pasteef ci liggéeyal sëñ Tuubaa di dem ci ndaje yi jullit yi dem ci daayira yi ndax lii daayira rek ko ñu sante ko Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi ko taxawal xam naa li ci des dañ koy bàyyi mun agee Rio mhm. fas yéene cee yaatal ci barke Serigne Touba waaye mbégte muñ muñ am rek mhm. maanaam mun nu ko wax daal ndax ak cant gu rëy mhm. waaw di ñaan ci barke ma faatimal Bisri Serigne Touba dolli nu jàmm dolli nuy xéewal ba bu déwénee kenn ku ci ne booy dem nga yor sa otey bopp yoo xam ne yii yu mucc ayib lay doon ci barke xasida yi Serigne Touba yi ba 27 état yëpp mat ci barke Serigne waaw a Rio de Janeiro xam nga dem liggéeyal sëñ euh, waaw waaw ñu ngi solo dundal fa it tur yàlla wi naka ngeen waajal ñun de ay Baay Faal lañ rek. te ndigal la ñuy wéyee maanaam dañ ñoo ñuy dem liggéeyali sëriñ bi. Mhm. waaw maam waajal nañ ko lu ne nag ci lépp. Mhm. waaw ngir dem rek liggéeyal sëriñ Tuubaa ak Cheikh

waaw waa Sàmpa Looy. waaw moom mooy yaay Baye Fall yi moom. waaw mooy yaay Baye Fall yi. mooy yaay ñëpp sax moom mooy Mama Africa. mais daal moom Baye Fall la moom Baye Fall la tippoo moom. loolu la Baye Fall. maam boobu naka nga gisee waa Jalle ak incha allah lan nga fay a yëg bëgg a si jëm tool. Bamba Rio. jërëjëf Serigne Touba. xanaa di waajal bis bi rek. ndeysaan di ñaan yàlla rek dem jaay jàmm. dañuy dégg gërëmal sëñ